wasalaamu aleykum wa rahmatullahi ci turi ki nga xam ne lépp toroxlu na mokk mokk la na ñeel màggam ci turi ki nga xam ne lépp jébbalu na ngir dooleem ci turi borom bi nga xam ne lépp suufe suufelu na sukkuraam na ngir rëyam gi ci turi borom bi nga xam ne lépp ommatu na ngir ragal ko borom bi nga xam ne asamaan ci ndigalam la taxawee waaye suuf si ci dooleem la dale bismillaahi rahmaani rahiim yow borom bi subhaanahu yow yàlla mi nga xam ne kenn du yàlla ku dul yow yow mi njëlbeen bi nga xam ne amoo tàmbali ca cay tey des ba faw amoo jeextal ba dappet yow mi kanam di ginnaaw di kaw di suuf di borom coobere di boroom nommeel yow kiy sottandiku te yow dong yaa mun yaay ki yéeg doo wàcc yaay ki raw kenn du la dab loo yembal mu yemb loo yembadil du yemb mukk koo jiital ñu topp koo nërmal mu daanu koo bitti loxo dootul tekkeeti koo jiital ñépp nangu sukk jébbal yow yaay yàlla képp ku dul yow du yàlla yaay ku sàppi yaay ki soppeeku yaay ki folleeku képp ku dul yow dana soppi dana sàlli dana soppeeku dana wàcc dana daanu dana jeexal koo fal raw na koo wàcce yàqu na ñu ngi beesalaat suñu mbuumi njaam di wéralaat suñu pas-pas yow yàlla di sukk di raam sa kanamu rëy gi ni yow rek yaay yàlla ku la topp du xewi ngir doo xewi waaye ku la to ku topp leneen ku du yow yàlla dana xewi te ay mbiram du sotti yow yàlla ñu ngi lay ñaan say géeju teraanga say walangaanu xiiwal yàlla bu mu dañ mukk di walangaan ci kaw xayru xalqillahi te mooy seydina muhammad jëmm joo xam ne jigéen musta jur lu mel ni moom daa iman abadan jigéen dootul jur lu mel ni moom kenn la woon ci mbindab yàlla dootul tollanti ko ti mukk ku jokk ci moom yegg ci yàlla képp ku jokkul ci moom doo yegg ci yàlla sallallahu alayhi wa di ñaan teraangaam yooyu yàlla bu mu dakk mukk ci sahaaba yi képp kuy xeeñ ci yoonu seydina muhammad daa iman abadan yàlla na sa cër doon mucc ak mucc la ya rabbi nuyoo yoo xam ne lépp lu ñu téye ne lii lu war a gën a neex la nuyoo yu ko gën a fës tànn nañ ko jubal ko ci mbooloo mi mébét yu ñoo xomm yoo xam ne bu ñu dajale woon gànjaru àddina yépp di seet seen seeraay bi ñu junj ne mooy bii moo gën a seer ñu ngi jubal ay mébét yu sell ay ñaan yàlla ay sargal tatagal guñ jëlee ci xool gu set wecc jëm ci mboolem ummatu muhammad bi fi toog di leen naan bisimila dal leen ak jàmm di leen sargal di leen teeru di leen tatagal di leen masaw coono ci lii ngeen toggoo te lépp ki tax mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yonent bi feeñ ci yéen ba ñépp xam na yonent bi feeñ na ci yéen sallallahu alayhi wa di leen ndokkeel ci bis bi di ndokkeel umatu muhammad fu ñu munti nekk ci kaw suuf ci penku ci sow ci bët saalum ci gànnaar ñépp ñu ngi dajale suñu pas-pas suñu bëgg-bëgg suñuy nomm nomm di ko teg sa kanam naan la jaajëf ci teewaay bi yàlla na yàlla fay la ya rabbi lii ñu jàkkaar lool addiya la addiya goo xam ne ci zaahir addiya gu tuuti la waaye ci yéen addi addiya gu rëy la jéem ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jiitu ci kàddu yu rafet ci kàddu yi sell niñ ko tuddee amul waaso amul askan amul xeet amul giit képp koo xam ne doomi aadama nga bërëb bi sa alal la waaye bërëb yi sa cër la yal na leen jig yaa bi yal na ngeen ko tal yaa bi ku ci ñëw ak coono yal na ak i jàmm bi hormati seydina muhammad kon ngeen teel ma sama hadiya bi jëm ci yéen hadiya bi maa ngi ko tuddee zeynul abidin kenn la woon ci doom yu ma yàlla mayoon ci dund gi mu teel a dem demin ngoo xam ne gu yërëmlu la demin ngoo xam ne ndimbal laa ci jógoon ngir dimbal kenn ci umatu Muhammad kooku mucc sama doom des ci comme magul ba meññ ñu mën a ne ay doomam ba ay sëtam la ma daal di jiital pàkk bi dippee ko ko ngir mu doon ak fàttale ko bekkar ñuy daje moom yomal xiyaamati yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla samay mbokk samay am di jàmm samay soppe samay wóllure wayjur ak fu ñu jóge ak ku mu doon kenn ku nekk gis naa la du gisu bët yem ci waaye gisu xol xam ne balaa tey bii di neex balaa muy wéttaleeku balaa muy ratax démb wéetoon na ñagasoon na lëndëmoon na métti na ngeen jàpp ci di jëñëx ba tey toll na foo xam ne puus amatu ci waaye taal mu tàkk rek la yal yàlla fay leen ci zaahir yal na yàlla fay leen ci baatin doole biir ak biti yàlla na gunge leen bi xormati seydina muhammad sallallahu alayhi euh, lii lu ma yàgg mébét la def lu toll yi wala def lu ko ëpp lii wallaahi lu tuuti la ci loo xam ne maa ngi ko doon mébét ci yàlla tudduma ko ngir ngistal du puukaréew du ndéggatal waaye dama ko tudd ngir sant borom bi subhaanahu wa taala ngir mënoon naa ko sabablu te yàlla du ko sottal te duma ci mun dara li ma tabaxloo lii gannaaw coobere yàlla gannaaw nommeelu yàlla ñaari dong moo tax ma tabax ko danaa ko biiral dama nekkoon taalibe di jàng yàlla nattoo ma jàngoro bu metti jàngoro goo xam ne yaakaara lu won ne bés bi dana ma fekk jamono am benn bërëb fi ma doon jàngee am dispensaire bu fa nekk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 soxnaam ëmb ba diis ñu def seen rewle cosaan yépp mun ta wasin ñu dugal ci charrette ne dañ ko yóbbu hôpital seetal jigéen buy mott ñu dugal ko ci charrette méttit boobu kan moo la ko mën a wax boñ buy metti sax boo ko mënta dugg charrette wala mu dugg ci ànd ak coono rawatina doom nekk ci biir jigéen juróom-ñeenti weer nga bëgg a wasin tëw wasin ñu dugal ci charrette di la yóbbu hôpital fi mu yéegee ci tali rek mu dajak oto subhaana mulki wal malakut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 du ma ci génnee dara lépp jébbal naa ko Seydina Muhammad ci laa ko tàmbale li ko tàmbale ba yàlla andi ko tey enveloppe boobu jeex na ay moromam jeex na ay moromam jeexaat waaye yàlla mottali na ko tey kon jéggal naa ñu doon wax yépp soppi damay soppi xaalis yi ko tabax ñépp jéggal naa leen tey fii ma toog jéggal naa ñu ñépp amul kenn ku ma bàyyi ñii nee nañu Iran moo may financé ba ñu dem ñu def recherche ñu bàyyi loolu téere yi ma doon am foofu sax dagg nañ ko pour bu mu yegg seeti ngir ne nañ Iran moo may dimbal ñu jóge foofu ne Irak moo may dimbale Saddam Hussein ba kooku loroo ñu ne du foofu ndax ba tey mi ngi liggéey ñu ne Libye moo koy dimbale ba Kadhafi jaare ci tali bi dem Kaolack wàccul fii ñu ne kon du Kadhafi ñu bàyyi loolu lan la ñu mujjee ñu ne sëriñ bi dafay soppi xaalis di dem ci magasin yi di leen laaj ne seet leen sëriñ bi alal gi muy andi ndax du foo wala foo bi ngeen doon sikk sàkk mi ngi nii te lii ñëw moo gën a rëy lii même bu ma deeyoon tey lii feeñ dana ëpp lii kàddu yi jiboon yëpp jégale naa ko toppatuma kenn ci dara baal naa leen lillahi wa li rasulihi eh, tur bi ma ko tuddee it danaa ko gën a leeralaat ndax ñu bari dañuy dem ci réewu arab yi di yalwaan damay tabax jumaa damay tabax jàkka boo ñëwee nga tàmbali du yegg mukk nga seet kala dimbaloon nga tuddi ko kookale waaye kii du Seydina du Seynul Abidin bu nekk ci réewu arab yi kii doom bu ma juróom la li ko andi tamit lii la yàlla dafa dogal dëkk bu ma jegeñ lool tudd ko du yomb benn jigéen bu seytaane feeñoon mu dof fekk mi ngi yore liir mu daw bàyyi ko du nangu liir bi muy daw ci àll bi ñu koy jàpp mu lu yàqu completement ñu andil ma ko ma ne na nga jël kuy ak ñeenti junni nga jox ko shérif Seydina Muhammad boo ko defee dinaa ci dugg ñu dem ñoo ne def nañ ko ndeka defuñ ko ma daal di jox ko ku saafara mu dem balaa timis di jot mu dellu ci sagoom wér cëng la ko bàyyi daal di jaar ci man ne kii def ñoo tooñoon ñu bëgg koo yar nga dox suñu digganteeg moom ba mënatuñ ko laal ñu fayee ko ci yow bët set rek sama doom lépp lu ma jur moom ma ci dàqaloon ndax dafa niroog sama baay mu ndékki ba rek ñëw ma foog ma mu daw génn fekk sareet mi ngi fees teb ak ciment mu laxasu ci rek mu jógu ci kam yàlla jël ko ba léegi ay yuuxam dañul sama nopp kon li ma ci jublu woon mooy jaamu yàlla ba sama doom loru ca di Zeynul Abidin di setu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma tuddee ko hôpital bi ngir dellu setur googal kon sabab bi lii la ngeen téye ko noonale te ngeen maandu dellu ci yàlla ëllëg ñi yàqu lépp ci lii lay tàmbali loo xamul loo bokkul maandu ci rek munuma laal lu tilim du rëy ci man jëmm ji toog di mbàkke dafay mbokk ci man waaye Cheikh Fanta Madi Haydara jigéenam moo jur sama yaay waaye sama baay it maama mooy Cheikh Moulay Hassan bu ma laalee lu tilim foofu lay dee kon wax it na na na oyof wax it na jàppani ngeen dellu ci yàlla xam na yàlla rek moo fi nekk lépp lu fa dugg bëgg a duggati lu yàlla ñii tëdd ci ron gi gis gii danañ ko dàq mu jóge fi yal yàlla jàmmal leen lu jaay Seydina Muhammad eh, yàlla de nee na ci alquran lu jamono lënt lënt lu jamono métti na am ay doome aadama yoo xam ne dañuy doon ay combattant yu yàlla di woote jëm ci yiw di digle lu baax te di tere lu bon ñooñu ëllëg ñooy mucc ñoo bokk ak Seydina Muhammad benn sàppe woote ci yiw nag du dara bu dul def ay réalisation sëriñ paase na nit dëkk loo xam nga li ci moom loolu du sëriñ fa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara yonte yàlla Muhammad boo demee ci tool ba mooy raw ci surga yi mooy ngeen ci njaatige yi boo demee ci tribunal ba mooy juge bi àtte boo demee ci daara ja mooy professeur biy jàngale boo demee ci tooli xare ba mooy général bi jiite boo demee ci jàkka ja mooy éliment bi ana sëriñ mooy defati lii koo seet rek mi ngi laqatu rek du maqaama moo ko laq du dara ay feem dong rek kon li fi nekk mbokk yi li ngay digle danga koy njëkk a def waaye li ngay tere da nga koy njëkk a bàyyi sëriñ moo waroon a njëkk a góorgóorlu laxasaayu jiitu ne leen jàngale fii ca géej ga waaye taxaw ci tefes naa ni ngay féeyee loolu amul dal dafa jaado woon sëriñ bu mu doon ni ngay tabaxee jumaa nga tabax hôpital tabax ay école def ay gar jardin d'enfants def ay orphelinat nit ñi yéem lislaam wuyu ko waaye nguur gi ñu ngi lay ñaan daaw nangam nga ma joxoon ci ceeb dollil ma sama dëkk satadoo ba courant ba doo wax diina yàlla gi doo wax ci progressé doo wax ci développement doo wax ci dara lu jëm ci sa poos ak ëllëg booy préparer sa njaboot kenn ku dajeek Seydina Muhammad ëllëg da nga gàccew démb sëriñ si seen karaama mooy diw feebar na faj naa ko moo doon karamay sëriñ bekkoor na ma ñaan mu taw àll gi naatatul ma ñaan waalo gi wal lii ku yàqule la ma ñaanal ko mu baax le kii ku yàqu la naa ko defar ba mu jëriñu boppam jëriñ nit ñi lii moo doon karaamay nitu yàlla yi waaye tey suñu karaama mooy gis nga oto bi mu jënd oto mooy lan ay yoon yu ñu dajale ëllëg moo lay gunge sëg ya dikk keneen moom ko gis nga sëriñ ba garambu bi mu sol gis nga këram ba verre yi ñu ci def climatiseur yi gis nga kër gi sëriñ bi tabax gis nga passeport bi ñu ko jox président moo ko woo audience ministre bi ko woo audience président mooy kan yéeg na tey ëllëg mu wàcc bàmmeelu président yaa ngi duñ ci siyaare benn demal ci xaadimu rasul mbaa nga dem ci waaw nit ñaa ngi rek kon diplôme bi ngeen yore yéen sëriñ si mooy gën diplôme bi ñuy yore ñii si li ñu yore wayul yàggul weyul te yéen li ngeen yore way na dana yàgg te dana wéy dana ànd ak yéen ba yomal qiyaamati sayyidina Muhammad takkal leen ma daa ngeen dugg aljana kon li yabeel gi sëriñ si am tey ñoo ko jënd da ngay seet ministre bi seet député bi yow fàtte nga kurus bi fàtte nga der bi yaa ngi daw ci buntu ñooñu rek boo jógee mu ne léegi la fi mara bi bu jóge li ma la bëggoon a jox jox naa ko mu def ko essence dem seetal ni mu yàqee sa tur sa ngénte bi de mënatuma ci def ñaari saaku benn laa ci mën a def ndax jox naa ko waa sëriñ bi yóbbu na ko këram toogal sa kër yàlla dina wulli jaami man danañ la fekk si yonent yàlla xam Muhammad ne na képp koo xam ne askan gi yitteelu la doo man du ma yow kon lii xewti jamono gii sëriñ si seen nelaw gi ñuy xas diina lislaam di ko ŋaññ di ko doyli kenn ku nekk préparer sa dund di préparer sa dund njaboot jëmul kër nañ dellu ci yàlla nañ dellu ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, nañu saafonte nañu baaxlante ak tayal gi motu ko nañu yittewoo suñuy bokk yittewu askan bi nañu dimbale miskin yi nañu dimbale baadoolo yi bàyyi wuute yi bàyyi xaccoo yi bàyyi diingatante bi jëmm ji ni mu def di ku mot sëkk ca Touba naaj bu tàng bi mu ñëw toog kook ñun lii dafa rafetoon sëriñ bu nekk nga dund lii yàlla na ko yàlla fay yaa rabbi yàlla bu yàlla tas yaakaaram yàlla bu yàlla tas seen yaakaar eh, alal gaa ngi nii kenn moom ko dul yéen jébbal naa leen ko bés tey jii lu ngeen ci xam lu ngeen ci mun lu ngeen yor yéen a seen alal a bu ngeen ko defaree seen njëriñ la bu ngeen ko yàqee seen loraanga la yal na yàlla dimbale leen yaa bi gërëm naa ñépp xala bu ma kenn xasuma kenn néewlawu ma bosi kenn ñi fi ñëw yépp sëriñ si elimaan yi xalifa yi jàngalekat yi taalibe yi presse bi di presse bu euh, rajo bi di RTS di rajo bi télé di télévision bi Sud FM rajo duniya Walf Fadjri Sine Saloum FM yu jóge Dakar boroom journaux yi fi ñëw takkuma turi ñëpp lu mel ni L'Obs ak yeneen yeneen organes yi fi ñëw yëpp te presse moo leen jógloo bi ñuy gis di tele bi ñuy déglu di rajo bi ñuy bind di journaux yi ñëpp gërëm naa leen gendarme yi sant naa leen ba ci kanamu yàlla am ñu toog yàlla rek moo leen toog la am na ñu toog yéen rab ga tax ñu toog naaj bi tàng na yéen ngi sol yu tàng yi dàll yu diis yi daal di gàddu seen kalashnikov yi te képp ko xam kalashnikov xam nga ne dafay nokki luy nokki na nga gàddu ko teg ko sa yaram muy nokki di ànd ak yow xam nga loolu métti na waaye lii lépp liñ ci bëgg mooy fii xam ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla na yàlla fay leen ma kenn bu xel bi tuddul it làmmiñ bi génnewul xol bi takk na maa ngi sukk di raam di beesal sama kóllëre ci yéen di leen masaw coono di leen naan jaajëf te bu leen wàccagum yàlla na yàlla guddal fan yi yàlla na yàlla wéral cër yàlla bu yàlla tas yaakaar yi lu ngeen xacc yàlla na jegeñ lu ngeen dàq yàlla na sori fépp fu ngeen jëm yàlla na ngeen ànd ak jàmm lu ngeen sumb yàlla na sotti lu ngeen jéem yàlla na àntu yàlla musal leen ci laago musal leen ci mujj gu ñaaw ci kaw ci kanam raw raw le bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam